donc ma tënk ko ci wolof di wax ni comme ni ko suñu euh, ministre waxee fi mu nekk nii am nañ téeméer ak juróom euh, ñeent fukk ak juróom euh, malade yoo xam ne testé nañ leen positif ci Sénégal ci ci diir ci groupe boobu am nañ ci juróom fukk ak juróom yoo xam ne wér nañu am nañ ci kenn koo xam ne yàlla jël na bakkenam yàlla na ko yàlla yërëm te xaare ko ajana am nañ kenn koo xam ne moom dëkkam muy réewu France daf ko jël yóbbu ko tugal donc am nañu téeméer ak fanweer ak ñett ñoo xam ne ñi ngi leen di faj si biir si biir dëkk bi et suñu xoolee ci loolu ñi nga xam ne ñoo jógee bitim réew bu ñu jëlee téeméer euh, euh, ñeent fukk yi ñoom ñoo jógee bitim réew indi feebar bi si téeméer yi aussi bu ñu jëlee juróom fukk ak juróom benn ñoo ñu ñooy ñi nga xam ne ñu jógee bitim réew indi feebar bi ñoo leen wàll feebar bi am nañ bu ñu jëlee téeméer ñeenti ñi ñoo xam ne ci biir dëkk bi la ñu amee feebar bi te ba léegi jàppaguñu fan la ñu amee fan la ñu lañ la leen feebar bi taqale donc bu ñu xoolee gis nañ ni ñi nga xam ne ñoo jógee bitim réew ñëw ci dëkk bi indi feebar bi ak ñi ñoom ñi ñu wàll bu ñu leen dajalee dina def euh, juróom-ñeent fukk ak juróom-benn donc lu takku la ci wàll boobu ba tax na. am na ñu yaakaar ak euh, mesures yi nga xam ne monsieur le président de la République jël na ko ñu tëj frontières yi euh, arrêté écoles yi euh, arrêté manifestation yi que loolu dina dinañu mën a gis effet yi fii ak semaine prochaine incha allah parce que dina war a war nañ teg fukki fan ak ñeent après bu ñu tëjee frontière pour ñu mën a gis parce que si diggante bi ñi nga xam ne tukki nañ ñi ngi si dëkk bi mun nañu feebar ci ci diggante bi donc foofu la ñu mën a xam fan nañu feebar bi di jëmee. maintenant bu ko jallé li am solo moy ñent ñi may wax ñi nga xam ci euh, ci euh, euh, téeméer bu né ño xamné ñi ngi ay contact lañu xeex di di di gën a rek mën na am feebar mu law mais am nañ yaakaar vraiment ak décision yi ñu jël ministre de la santé tactile yi mu joxé am nañ yaakaar ci loolu war nañ ko mëna a ci wàllu gox yi am feebar yi ba léegi soppeegul am nañ juróom benn gox yoo xam ne am nañ ko muy ndakaaru muy Thiès muy Ndar muy Njaareem muy Ziguinchor ak euh, muy Fatick te ci aussi fi nga xam ne la ñuy faje maladie am nañ ci juróom-ñaar ci hôpital fan am nañ ci benn euh, hôpital d'enfants Albert Roy euh, de ñaajo bi nga xam ne extension bi am nañ fa benn hôpital Dalal Jamm am nañ fa benn centre hospitalier de Malte am nañ fa benn

disponible na pour ñu mën a maladie donc euh, anticiper nañ ci loolu te lalu sauvetage aussi ñu ngi koy ci gox yi nga centre de de traitement ci wàllu jumtukaay yi nga xam mom le personnel de santé bi di jëfandikoo pour di euh, topoto maladie loolu aussi euh, egg na parce que région bu nek jox nañ ko matériel bi nga xam amna na nguur bi jënd na ay matériel am nañ aussi ay ndimbal yu ñu jot ci ay partenaires donc euh, ministre de la santé joxe na ndigal ba nga xam ne lépp lu walu ci équipement yi egg na ci ñoom suñu centre de traitement yi aussi lépp lu war ci jumtukaay am nañ ko dem nañ ba am nañu réserve boo xam ne denc nañ ko suñu service centre des opérations mais également ci pharmacie nationale d'approvisionnement té nguur baa continuer aussi pour jëndaat yeneen équipement de protection pour mun ko garder ba nga xamné duñu am dara lu ñu suñu xolé aussi ci wàllu euh, laboratoire bi donc Pasteur ñom dinañ ci wax ñi ngi ci jappalé bu baax ak benen laboratoire bu ñaan naan IRC boo xam mi ngi ci Thiès donc ñi ngi xol nu ñuy vraiment yoké aussi man man bi ba nga xamné région yi gëna sori comme Ziguinchor dinañ fa mëna def euh analyse bu gëna gaaw légui buñu xolé ci maladie ci at ñu am euh, japp nañ ni entre ñi am ñaar fukki at ak juróom ak juróom fekku at boo jëlee téeméer bu ne mën nañu juróom benn euh, euh, juróom benn fukk ak ñeent ñi nga xam ne ëpp nañu euh, juróom benn fukki at nekk nañ ci fukk ak ñeent donc loolu dafa am solo pour ñu xool ko bu baax parce que ñi nga xam ne ñooy am xam ne dañu jëbu sabotage ci at yooyu la ñu nekk surtout ñi nga xam ne dinañu passé juróom benn fukki at donc ba tax war nañu toujours bàyyi xel ci li ñi nga xam ne ministère de la santé joxe na ko ci ndigal ci wàllu cat bi ci wàllu vraiment ñu xaw a sorante ba ñu góorgóorlu ci lool ba fii ak ay fan ba feebar bi ñu mun ko téye euh, ci wàllu aussi euh, feebar bi jigéen ñi lañ gis ni ñoo ci xaw a ëpp tuuti parce que bu ñu jëlee euh, bu ñu téeméer jigéen ñi mën nañu juróom benn juróom fukk ak ñeent donc góor yi nekk ñeent fukk ak juróom benn donc parce que tolloo nañ mais gis nañu jigéen ñi am feebar bi parce que gis nañ bari bëri aussi nag bi amee feebar seen soxna yi euh, wàll nañ leen seen doom aussi te jigéen ñi ñoo ci ëpp. ci wàllu contact yi mooy ñi nga tax ci ñi am feebar bi nga xam nyom dañ leen war a seet ñëpp ñi ngi si ñaari ñaari Juni, fi mu nekk nii ñaari ak juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñetti fuk, ak ñett euh, juróom-ñett yoo xam ngi leen di top. ci loolu am na junni ak euh, fanweer ak euh, juróom-ñaar yoo xam ne génn nañ ci suivi bi donc fi mu nekk nii am nañu junni ak euh, juróom-ñett fukk ak juróom fukk ak benn ñoo xam ne ñu ngi leen di topp te ñoo ñu am na ñoo xam ne déjà président joxoon na ndigal pour ñu yóbbu leen ci hôtel pour mu leen seet parce que contact yi ñuy wax yooyu dafa am solo pour ñu mun leen topp parce que bu ñu demee ba tënk contact yi même bu ci amee ma détail ku ci feebar dina nekk foo xam ne dinañ ko seet dinañ ko mën a téye ba du mën a wàllu kenn parce que feebar bi noonu lañ ko mën a téewee il faut que ñëpp ñi nga xam ne am nañu feebar bi wala ñi nga xam ne nekk nañ contact bu mën a am feebar bi ñu tënk leen ba nga xam ne bu dara xewee rek dinañu mun jël en charge rapidement te ñu bañ a mun a wàll keneen. di di terminer rek di xool wax ni aussi liggéey bi dañ ko bokk ak ñu bëri ministre de la santé souligné na sànq. Euh, waa ñi nekk ci wérgu yaram bi te loolu dañ koy rafetlu ñi nekk ci poste de santé yi ñi nekk ci district de santé yi ci région médicale yi ñi def liggéey bu am solo parce que ñom ñoy dem xol maladie yi ñoo leen di seet ñoo leen di top ñoy def prélèvement yi des fois ñom ñoy transporter sax maladie ci hôpital donc liguey bo amna solo liguey bi aussi dañ ko bokk aussi yenen service muy les forces de défense et de sécurité wa police wa gendarmerie wa armée ñi ñuy jàppale bu baax ak yenen ministères yo xamné ministère de l'élevage communication peut-être su ma djum ak yenen partenaires aussi ñi ñi jappalé bu baax ci ci walu liguey bi ba dinañ vraiment ñi ngi ñaan bu si ñepp jappé inshallah dinañ mëna am ay baax yoo xam ne peut-être faaw bi dinañ ko mën a téye